جنا بنيو سنتي على جولي جنان تبي عليه الصلاة والسلام نيوان بتاي تي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة مجن سيوي تي مكن عقيدة الطحاوية والإمام أبو جعفر الوراق أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحجري الحنفي رحمه الله ورضي عنه ci suñu jotaay yi wessu ñi ngi won batay ci kàddu gi nga xamantene manam gu ama am solo la te mom moy bi mu nan ma zaala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yasdad bi kawnihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadhalika la yazalu alayha abadiyan ba wax ja jeex ba ci laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ne borom maam imam altahawi rahimahullah musta dañ maanaam mu ne borom bi subhanahu wa taala musta dañ ci ay melom moom borom bi subhanahu wa taala di koy jiitu laata mbindi fi te e, nekk gi nga xamante ne moom lañu nekk musuñu ko yokk dara ci melom moom borom bi subhanahu wa taala te kéem ni nga xamante ne noonu la nekkee naka jekk ci ay melom e, te amul fu mu tàmbalee naka noonu du dañ mukk di nekk koo xamante ne day ràngoo melo yooya day làmboo melo yooya nekk koo xamante ne maanaam dafay melo melo yooya ba faw euh, te mbindee fii du ne ñoom ñoo maanaam daf leen bind maanaam lay sabaada xalqil xalq istifaadu ismul xaaliq du ne ginnaaw bi mu bindee mbindee fi ci la euh, jële maanaam ci la jariñoowee tur bi nga xamante ne moom mooy alxaaliq ولا باحداث البريه استفاد اسم الباري مانام دونه فصص فاصوص مندي في موتاخ مام لي ني سوس موتاخ مو تود الباري موي كي سوس ت موم له معنى الربوبيه ولا مربوب امون معنى الربوبيه مانام ني موم تي بوبم موي الربو تكون كونو موم مانام دي ديكو توپاتو نيكو في ومعنى الخالق ولا مخلوق مانام بروم سبحانه وتعالى دا فا يورون معنى ني موم موي maanaam moom dafa meloo woon nekk aju bind melowoo ko maanaam am sañ-sañ ak kattan ci bind ak xam-xam ci bind te booba ku ñu bind nekku fi woon wa kama annahu muhyil mawta maanaam te kéem ni nga xam ne noonu la nekk woon ki nga xam ne mooy dundal ñi dee baadama ahya ginnaaw bi nga xamante ne moom la dekkil maanaam moom la dundal naka noonu istaxaqa hadha al isma qabla ihyaihim noonu la yelloowe woon boobu tur laata mu leen di dundal كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم نك نون نون لا يلا وون مانام تورك ني موم موي ادي بند جي لاتا مونين دي بند ذلك بانه على كل شيء قدير وكل شيء اليه فقير وكل امر عليه يسير lool nak mu ne bo gisee mu nek moy ne mom borom bi subhanahu wa ta'ala bepp mbir la sañ lepp la sañ te man ko te lepp dafa aaju wo ci mom bépp mbir maanaam faqirun lu aajowoo la lool ilayhi jëm ci moom wa kullu amrin alayhi yasir te bépp mbir dafa nekk lu jàppandi lool ci moom laa yaxtaaju ila shay'in moom aajowowul dara laysa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir déet kemam di maanaam muy melowoo dara te moom euh, lépp la maanaam moom mooy ki nga xamante ne maanaam doy dégg lépp te day gis lépp Euh, kon yii maanaam wax ji ba sax euh, wax ji ci tegu maanaam dafa nekk wax joo xamante ne al imaam euh, Abu Hanifa rahimahullah wa radiya anhu mi ngi ko indi ci al fiqhul akbar maanaam téeram bu bu boobu nga xam ne ci pas-pas la ko def kon loolu mii moom mooy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ci lu amul xëccoo ndax سك نقول تنه إمام أبو حنيفة ما نام تسلف صالح إلى بق مم تبغى بام تابعي له قسنا الصحابة نين الصحابة رضي الله عنهم جسنا لين تسيرنا أنا سيدنا مالك رضي الله عنه بق نجى نكنونو منك كوهام تنه إمام لا بني باي خلال تيمبولم خم خمية رواتنا خم خم فقه waaye tamit xam-xamu pas-pas aqida kon euh, imam at-Tahawi rahimahullah moom itam mel noonu bokk ci salafu saalixe comme niñ ko gise woon ci bi ñuy def tarjumam leeraloon nañ loolu yëpp euh, ak te téeram bi nee na ci pas-pasu imam Abu Hanifa la ko def ak imam euh, maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu julit ñi ci xam-xam ak ci pas-pas te mu tuddoon ci Euh, ala sabilil misaal ci mazhab bi nga xam ne la ne maanaam mu tuddoon ci imam Abu Hanifa an ak ñaari taalibeem yu màgg yi te moom mooy al euh, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari ak al Abu Abdullah Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ridwanullahi alayhim ajma'in euh, yii nga xamante ne moom lañuy wax nii borom bi kon subhaanahu wa taala melo yi nga xamante ne moom la melowoo te ji maanaam melo yooyu nekk loo xam ne dafa jiitu mësta dañ di melowoo yooyu melo euh, loolu dafa nekk loo xamante ne euh, waa ahlu sunnati wal jamaa ñoom ñëpp dañ cee dëppoo muy achaira yi ak maturidi yi ak mboolem ñi nga xamante ne dañoo dëppoo ak ñoom ci seen pas-pas maanaam euh, comme kullaabi yi comme suufi yi comme ñeneen ak ñeneen ñu xamante ne xataa ba wóote ci benn ci mbooloo yooya waaye d'accord nañ ne ñoom maanaam ñoom seen pas-pas dafa dëppoo ak maanaam pas-pas bi muy pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa kon ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ne borom bi subhanahu wa taala mbindeef fi yokkuñu ko dara te it euh, jamono ji du aw def effet ci moom amul jeexital ci moom te amul ay mbir yoo xam ne dañuy sosu ci biiram wuuteeg li nga xamante ne moom la salafi di wax maanaam ñi nga xam ne ay ibnu taymiya ak ñi nga xam ne ñoom lay topp ak karamiya yi sax nga xamante ne dëgg-dëgg ñooñu ñoom ñooy seen ay ak mujassima yi nga xamante ne dëgg-dëgg ñooñu ñoom seen ay seen ay salaf ñoom bu ñuy wax as salaf ñooñu la ñuy wax euh, waaye bu ñu xoolee dëgg-dëgg ñee taxul ñuy wax maanaam ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy salafu saalih ñoom taxul ñuy wax ndax ñooñu la imam at-Tahawi représenté ñooñu la imam Abu Hanifa représenté ñooñu la imam Euh, ya euh, euh, Abu Yusuf représenté ñooñu la imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani représenté te ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ngandi imam yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy imaamu mboolem boroom xam-xam yi ci mboolem domaine yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale woon bañ ca tollee maanaam ñi nga xam ne ñooy salafiyee nag li gën a màgg liñ lay wax ñaare mooy ibnu taymiya te Euh, maanaam kooku mooy ki gën a sori ci ñuy wax maanaam buñ naan la bu salaf yi nii lañ wax moo tax cheikhul islam ibnu taymiya nee na loolu ñaare mooy seen référence bi gën a mag waaye euh, ñoom jàpp nañ ni daanaka bu ñu waxee ibnu taymiya wax nañ lépp euh, ñoom dañoo jàpp ne borom bi subhaanahu wa taala ay meloom lépp sosowul ci moom comme niñ ko gisee woon ci waxu ibnu usaymin te wax jooju ibnu taymiya moom ci boppam wax na ko te dinañ ci ñëwaat léegi ci ay lenn ci ay waxam balaa ñuy ñëw ci waxu ku mel ni cheikh abdul aziz ibnu baz ak waxu euh, ibnu abdul aziz alxanafi euh, waaye balaa loolu dañuy indi benn nas bu am solo boo xamante ne euh, al imam abul fadl at tamimi daf ko indi ci di leeral maam ci téere boobu nga xamante ne daf koo tuddee i'tiqaadul imam ahmad آه، رحمه الله ورضي عنه مانام باس باسو امام احمد ابن حنبل مونے ا آه، دانيو لير بار باتي مانام دي دي دي دي في رواله مانام غير ليرال ني دغ دغ نيوم سين مذهب بونيو ووتو وونه امام احمد موي سين سري داير كوم نيغا خامتاني نون لوكال امام ابن الجوزي دافه مانام تي دافو شبه التشبيه باكو في التنزيح مانام ليرال ني Euh, ñooñu ñuy wax nga xamante ne ñoom ñooy euh, ku ni euh, Abu Saïd ad-Darimi ku mel ni Abu Ya'la ku ak ñu mel ni ñoom comme Ibnu Taymiya ak ñeneen ñu ni ñoom seen pas-pas nekkul pas-pasu imam Ahmad ibnu Hanbal abadan maanaam ñooñu bokkuñu dëgg-dëgg pas-pas ak imam Ahmad ibnu Hanbal bi nga xamante ne moom la ñuy woote woo bu ñuy wax as-salafu waaye imam ahmad ibn hanbal pas-pasam dafa dëppoog pas-pasu ashari yi ak al imam abul hasan al ashari radiallahu anhu la preuve mooy ci al ibana imam abul hasan al ashari dafa ni moom radiallahu anhu maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy royukaayam te ñi muy topp mooy imam ahmad ibn hanbal radiallahu taala anhu léegi moom mu ne al أبو الفضل التميمي من وذهب mu ne wa dhahaba ahmad ibn hanbal إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى وأن له غضبا ورضا وقرأ أحمد قوله عز وجل ما نم لول نتنيو ما نم من إمام أحمد دي رضي الله عنه إمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه موم دفو جسني بوري الله سبحانه وتعالى عز وجل دي مر ما نم ما نم دنا مر دي دنا جرم تيد دفو أمي ci meloom yi lu ñu tuddee alxadab maanaam mer ak arrida muy ngërëm imam ahmad daal di wax jàng jàng jàng ji maanaam ba fii dëppoo nañ ci ak ñoom ak ñi xam ne ñoom ñooy euh, salafiye yi maanaam taalibe na taymiye yi ak karram yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne yàlla dana am loolu sauf que fi ñu wutee mooy ne ñoom dañ ne loolu bu dee karram yi dañ ne euh, kii mer maanaam yàlla day mer day mere day mere maanaam ki mu gis ne kooku mat naa mere maanaam mat nañ dañ ko war a mere ak ki day kontaan ci ki nga xam ne gis nañ ni daa war a kontaan ci kooka sauf que Ibnu ñoom euh, Ibnu Taymiyya ak taalibe mi ñoom dañoo jàpp ne melo yooyu maanaam yàlla dafa am melok mer ak melok euh, gërëm sof que euh, balaa moo mer wala balaa moo gërëm faaw mu gis ku ku ku ku ku mu war a mere wala ku mu war a gërëm kontaan ci moom maanaam faaw mbindeef am. ba def lu jar ñu mere ko mu doog a mer waa ahlu sunna nag d'accorduñ ci lool ñoom dañoo jàpp ne melo yooyu melo yu borom bi lañ subhaanahu wa taala ay yu taqoo ak moom waaye melo yooyu ne moom moo tudd al irada mooy moo tax bi ñu tudd juróom-ñaari melo yu tuddaale wuñ ko parce que lu tax parce que melo boobu day dellu ci biir melo nga xamante ne al irada nam noonu lañ gisee ne yàlla moom borom subhaanahu wa taala mooy ar yëkkati ko waate moom mooy alxaafid moom mooy kiy wàcce waate moom mooy euh, moom mooy ki nga xamante ne euh, moom mooy almuizzu mooy kiy joxe nooteel teranga waaye moom mooy almuzillu mooy kiy toroxalaate ànd ak loolu yëpp yooyu yëpp dañu ne ay melo yoo xam ne yu nekk ci yu maanaam ay tuuru yàlla lañ yoo xamante ne melo yooyu nekk ci borom bi subhaanahu wa taala ay melo sax lañ ci moom waaye melo la yoo xamante ne yooyu yëpp dañuy dellu ci melo yi li nga xamante ne moom mooy al iraada maanaam da ngay gis sew sew imam at-Tahawi rahimahullah ni muy waxe ba tax maanaam ci bi muy def tanzih mu dugal ci wala yakunu illa ma yurid maanaam dara du am lu dul li mu namm maanaam kon ki nga xamante ne dafa torox c'est parce que borom subhanahu wa ta'ala moom mi nga xam ne moo melowoo di toroxalaate maanaam moom moo feeñal ci moom melo boobu looloo tax mu torox ki nga xamante ne moom mooy kii ki tedd borom subhanahu moo feeñal ci moom melo boobu moom moo tax mu tedd ak yu mel noonu waaye nag loolu yëpp telewul ne maanaam euh, que ni euh, euh, ay mbir yu bees la ci borom bi subhaanahu wa taala wala bokk maanaam jëf la joo xamante ne day toog ba gis lu mat a def rek mu def maanaam que mbindee fi ñoom ñooy am déedéet maanaam ñoom ñooy koy sababal ci moom déedéet waaye c'est parce que moom dafa melowoo noonu moo tax mu feeñ ci mbindeef yi maanaam ñoom loolu la ñuy wax que c'est parce que borom bi subhaanahu wa dafa amee melowu wu ñuy tuddee mer ak melo wuñu tuddé ngeureum loolu mom motax manam borom subhanahu wa taala feñal meram ak ngeureumum ci minde fi manam waye du né minde fi ci seen bop ñom ñoy def luy tax yalla mom ci jëmmi boppam di mer dedet manam du melo wo xamantene da fay nekk ci borom subhanahu wa taala di xew di nekk luy sosu di bes comme ni nga xamantene ñun ni nga xamne nyun, lañ mer nekkee ci ñun ak contane ni mu nekkee ci ñun manam nga gis ne dañuy mëna jékki-jékki di jékki-jékki di mer parce que dañuy am lu ñuy kontaanloo ak lu ñuy merloo parce que loolu dañu kontaanloo ak dañu merloo du loo xamante ne maanaam ñun ñoo ko def ci ñun déedéet c'est parce que ay mbir la yoo xamante ne dafa xew ci ñun comme ñoom li nga xam ne noonu la ko salafiyé yi maanaam euh, wahabiye yi euh, ak seen sëriñ Ibnu Taymiyya di waxe ne sifatun xaadisa la maanaam melo bu sosu la comme maanaam Ibnu Taymiyya sifatun xaadisa lay faral di wax melo bu sosu la ku mel ni Ibnu Usaymin masalan moom sifatun taari wax maanaam melo boo xamante ne Eh, dafa dafa dal ci kaw yàlla maam dafa dafa dafa jekki jékki yegg si ci yàlla loolu nag foofu mooy point bi nga xamante ne foofu lañu ñu wuutee waaye ñoom bu ñu nettali wuute gi comme niñ ko gisee woon ñoom du ñu wax ne eh, ahlu sunna maanaam asha'ira yi ak maturidi yi ak ñu mel ne ñoom ñoom du ñu wax ne ñoom dañ ne ñoom nii lañ ko déggee de déedéet dañ naan ñoom dañoo bañ ne yàlla dañ ne yàlla du mer dañ ne yàlla du kontaan du gërëm maanaam ñoom dañ ne loolu amul ci yàlla dañoo bañ loola alors que bañuñu ko dégg-dégg gi ci am lañ bañ maanaam point bi ñu wuutee dégg-dégg foofu maanaam ñoom loolu lañu dul leeral mais daa iman dañuy euh, wax maanaam euh, moo tax ci ci sos la ñuy dëkk parce que xam nañ ni bis bu ñu d'accord ci ne ñu ne ñoom ñoo bokk bokk nañ am na fu ñu bokk mais fi ñu wuutee il faut que ñu leeral ne point boobu foofu rek la ñu wuutee maanaam dañuy gis ne mboolem borom xel yi dañuy xam ne dëgg gi dañuy xàmmee dëgg gi fi mu féete yàlla nañu yàlla sàmm léegi moom mu ne wa qaraa ahmad qawlahu azza wa jalla maanaam imam abul fadl at-tamimi rahimahullah daan ne imam ahmad de bi mu waxee loolu ba pare dafa jàng daan ne wala tatghaw fihi fa yaxilla alaykum ghadabi wa man yaxlil alayhi ghadabi faqad hawa mu ne ci suuratu taaha juróom-ñetteel fukkeelu aaya beg benn muy 81 mu ne bu leen euh, mbeew ci kaw suuf bu leen ci beew parce que loolu soo leen ko defee fa yaxil la dana dal dana wàcc aleykum ci yéen xadabi sama mer dégg nga maanaam kon merug yàlla day wàcc ci ñoom loolu li muy tekki mooy lan mooy jeexitalu merug yàlla te loolu dinañ ko gis wa man yaxlil alayhi xadabi képp koo xam ne sama meer nag dafa sa wàcc ci yow faqad hawa parce que maanaam dëgg-dëgg maanaam Euh, jéng nga maanaam nekk nga koo xamante ne topp nga sa bànneexu bakkan léegi mu ne wa adaafa al ghadab borom bi subhaanahu kon dafa askanalee euh, mer bi ila nafsihi ci boppam maanaam kon mer bi daf ko askanalee boppam kon loolu moom mooy lan mooy melo la ci moom mu ne wa qaala azza wa jalla borom bi subhaanahu wa taala daa di wax tamit ne fa lamma asafuuna intaqamna minhum muy soortu zuxruf aaye juróom fukk juróom muy cinquante cinq mu ne falamma ba nga xamante ne asafuuna merloo nañ moo tax mu ne qaala ibnu abbas sayyidna abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma nee na yaani axdabuuna maanaam li muy tekk mooy bañ ñu merloowee mooy lan mu ne bañ ñu merloowee nee na ñu daal leen di bugal wa qawluhu aydan ak wax ji nga xamante ne moom lañ wax ne فجزاؤه جهنم xaalidan fiha fa ghadiba allahu alayhi wa la'ana mooy ki nga xamante ne dafa rey jullit wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan maanaam ku rey jullit te tey ko borom bi subhaanahu wa taala ne fa jazaa'uhu jahannamu payam moom mooy jahannama xaalidan fiha daf ciy biil daf ciy sax wa ghadiba allahu alayhi te yàlla daf koy mere maanaam day mere ci kawam wa la'anahu te daf koy rëbb loolu sooratu Nisaa la nekk ay 93 maanaam juróom-ñeent fukk ak ñett mu ne wa misla zalika fil qur'ani kasir maanaam lu mel nii ci alquran moom lu bari la léegi mu ne wal ghadabu war rida sifataani mer ak ngërëm loolu ñaari melo lañ sifataani lahu min sifaati nafsihi maanaam ay meloom lañ moom buur yàlla subhaanahu wa taala waaye nekk ay melooy boppam yoo xamante ne lam yazalillahu taala xaadiban ala man sabaqa fi ilmihi an yakunu mimma yuxdibuhu wa lam yazal raadiyan ala ma sabaqa fi l ilmi annahu yakunu mimma yurdihi lii nag moom mooy li nga xamante ne dëgg dëgg moom mooy wax ji fii moom mooy point central bi nga xamante ne fii la ñuy wuute wala ñu bañ a wuute léegi ñu xool imam ahmad kon kan la dëppool ci wax ji ndax ñun ahlu sunna la dëppool wala ñoom mushabbiha yi xasawiya yi la dëppul maanaam salafiya yi ñoom la dëppul mu ne dañ koy jël baat par baat lam yazal mësuta deñ allahu moom bur yàlla taala aji kawe ji xaadiban di aji mer ala man ci kaw ki nga xam ala ma ci kaw la nga xam ne sabaqa jiitu na fil ilmi ci xam-xam maanaam mooy xam-xam borom subhanahu wa taala nga xam ne mësta deñ di xam annahu naka mom bur yalla yakunu dana nek mimma ci eh, ci li nga euh euh man fii ilmihi bok mimma ma sabaq fii ilmihi ci xam annahu naka mom yakunu dana nek mimma yughdibu ne dana ko merlo manam ne li mom yalla li daf may merlo manam limi tek moy ak sama mer day feeñ ci li lola yalla musu te deñ di wo lola manam kon ak meram ni nga xamne mom la nam namam ni ñu wax ne dafa aju ci lépp loo xamante ne euh, euh, euh, lu mën a nekk la lu jàppandi la maanaam ci mumkinaat yi la ak kattanam ni mu ajoo ci loo xamante ne mooy mumkinaat yi yi jàppandi ni nga xamante ne noonu lañuy mën a waxee ne xam-xamam dafa aju ci mboole mbir yi et que dundam moom yàlla ajuwul ci dara ni nga xam maanaam yooyu noonu et que kat et que kàddoom dafa aju ci mboolem mbir yi gis-gisam ajo ci mboolem lu ñuy gis te mën na nekk ci leneen aussi euh, dégg-déggam aju ci mboolem li ñuy dégg te mën a nekk ci leneen noonu la maanaam euh, meram di ajoo ci mboolem loo xamante ne xamoon na ci lu jiitu ci ne maanaam lii ak meram dana ca feeñ lii moom mooy wax ji et que nam maanaam euh, te loolu bu boobaa loolu ci namm na moom lay aju maanaam moom mooy namm ne lii euh, sama mer danaa ko feeñal ci lii ne lii moom danaa danaa danaa ci mer ndax melo boo xam ne moom booram bi musta deñ euh, di ko melowoo te du deñ loolu meram du deñ di aju ci loo xamante ne ci xam-xamam gu jiitu xamoon na ne lii moom maanaam ak meram daf ci aju walam yazal te musta deñ tamit radiyan di aji gërëm alaama ci la nga xamante ne sabaqa jiitu na fil almi ci xam-xam ga mooy xam-xam gu jiitu ga àndoo nag moom yàquwul da dana nekk mimmaa ci li nga xam ne yurdihi dana ko gërëmloo voilà loolu moom moo tax wa ankara mu diingat euh, mu diingat moom imam ahmad asxaabahu ay àndandoom maanaam mooy ñan mooy ñi nga xamante ne euh, euh, ñoom ñooy woote woo ci mazhabam comme ad-Daarimi comme Abul Ya'la comme Ibnu Taymiyya ak ñeneen ñu ni moom mu diingat ci seen kaw ala man yaqulu ci kew ci ki nga xamante ne euh, euh, wala boog wa ankara asxaabuhu maanaam ay taalibi imam ahmad yam daan àndal voilà ñoom diingat nañ ala man yaqulu ci kaw ki nga xam ne day wax comme ñoom ibnu taymiya wala comme ad-daarimi comme euh, comme alqaadi abu ya'la ak ñu mel ni ñoom ne inna rida naka ngërëm wal ghadabu ak mer maxluqaane dañ leen bind manam moy lan moy dañoo sosu parce que lepp lu sosu moy luñu créer luñu amal lo xamne ne amal nañ ko manam que ni ñoom dañoo jàpp ne ñom ñaar dañuy créer wu ci bir ya-, yàlla manam comme niñ ko gisee ni ibnu Usaymin waxon rek lolu mom mom kenn mënu ko di nga tal ñom ñoko wax te ñun suñu wax dañuy indi ñom liñ wax pa li nga xamantene Euh, dañ leen ko ñoom maam dañ dañ ko wax ni comme ñoom ni ñuy def ñoom bu ñuy dañuy dañuy dagg dagg dagg dagg dagg déedéet ñun dañuy wax wax jëpp ne lii la ko waxee wax ji leer na xaalu ñoom dañuy ne maanaam ki nga ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñooy taalibi imam ahmad yi dëgg daan ànd ak moom te sosoon ci moom rek ñoom dañ naan fa man qaala zalika képp ku wax loolu lazimahu day daal di aju ci kawam an na ne ghadaba allahi azza wa jalla merug yàlla buur yàlla azza wa jalla alal kaafiriina ci yéeféer yi yaf naa dana jeex wa kazalika naka noonu ridaahu ak ngërëmam alal ambiya yi ci yeneen yi alayhimu salaatu salaam wal muminin ak way gëm yi radiyallahu anhum ne loolu tamit day jeex maanaam loolu lan la tekki maanaam ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoo nekk ci mazhab imam ahmad te topp yoonam xam nga lan lañ wax ñoom dañ ne képp koo xam ne da jàpp ne képp koo xam ne da jàpp ne yàlla meram day dañ dafa nekk lu sosu maanaam mooy day mer parce que dafa gis lu ko merloo wala dafa dégg lu ko merloo wala dafa xam lu ko merloo te loolu lu sosu la maanaam am na sabab comme ñoom niñ koy waxe wala mu kontaan parce que dafa am lu ko kontaan loolu li muy tekki kon mooy ne comme que dafa sosu te lépp maanaam li muy kon mooy ngërëmam kontaan gi mu kontaan ci yenente yi alayhi salaatu wasalaam ak ci julli ñi day jeex parce que kontaan bu fekkee dafa créé yow li muy tekki mooy da ngay kontaan mais après kontaan mën du du du du du wéy maanaam day day day day day day xew comme que xew-xew la maanaam day day ponctuel maanaam dafa dafa am rek nii ak mérite dafa am nii loolu bu boobaa li muy tekki moom mooy kon mere gi mu mere yéeféer yi day jeex te kontaan gi mu kontaan ci yenent yi alayhi salaam ak jullit day jeex wala boog possible na mu jeex maanaam kon loolu moom mooy li ñu wax euh, te loolu euh, euh, dégg nga mu ne xatta laa yakunu radiyan bu boobaa loolu day nekk ba nga xamante ne kon dootul ti ku gërëm ala awliya yi ci ñi nga xam ne ñooy parandoom wala saaxitan te du sànj tamit ala aada yi ci noonam yi wayu samma te tuddee nañ maakaana li nga xam ne nekk na ani sifati maanaam ñoom dañoo ñoom bu boobaa wayu sama maam dañoo tuddee maa maam mu ne wayu sama def na tuddee maakaana loo xam ne dafa nekk ani sifati di tukkee ci melo yi bismi ci turu melo yi majaazan mu nekk loo xam ne majaazan fii ba'd al ashya majaaz mooy sens figuré fii ba maanaam mooy loo xam ne euh, dañ koo wax mais liñ ci namm Euh, leneen lañ ci nam mooy tey bu ma gisee nit daan ni wu diw gaynde la maanaam jubluwuma ci ne moom mooy euh, rab boobu nekk ci àll bi te soxor maanaam mën a maanaam ñu koy ñu koy tudd lu bëri rab boobu déedéet li ma ci jublu mooy jàmbaar la lu tax parce que dañoo gis ne gaynde dafa jàmbaare ñu tuddee ko loola wala bopp mu ne maanaam loolu mooy majaas comme bu ma nee euh, la wasalil qarya laajal dëkk bi maanaam li muy tekk mooy waa dëkk bi dégg nga mu ne euh, lu lu tukkee ci mbir tamit lool dañ koy tuddee da mbat maam loolu day mën a nekk majaas muy joxe exemple mu ne mu ne wayu sama def na tuddee azabullahi mbugalum yàlla ta'ala wa iqaabihi maanaam ak mbugal gi nga xamante ne moom lay teg ginnaaw bi mu bi nit ki defee lu bon loolu dañ koy tuddee xadaban ak mer wa saxatal ak sànj lu tax li annahuma ndax ñaari yooyu muy mbugal gi yàlla lay tegaate ak li nga xamante ne repression la mooy ne nit ki dafa def dara yàlla teg ko ko loolu yëpp dañ koy tuddee lan dañ koy tuddee mbugal ak mer lu tax parce que euh, euh, ndax ñoom ñi anil ghadabi kaana maanaam dañoo amee ci mer maanaam ci mer lañu ñu tukkee mu ne waqat te dëgg-dëgg ajma al muslimuna jullit ñëpp dëppoo nañ ci li mbir mi mooy ne laayatanaakaruna du ñuy bañante du ñuy weddi wante annahum naka ñoom isaara aw bu ñu gisee az-zalazila euh, mooy rëngi-rëngi suuf si mooy ay tremblement de terre bu ñu ko gisee wal amtaara ak taw al-azima yu mag yi maanaam mooy ba nga xamante ne day def am mbënd ñoom bu ñu gisee yu mel noonu jullit ñëpp yaquluuna dañ naan haadihi lii qudratullahi kàttanuk yàlla la taala aji kawe ji dañ naan lii day kàttanuk yàlla la te kenn du kenn benn julit du ko du wax moromam ne ko non non non non li du kàttanuk yàlla mu wal maana te maana bi annaha naka mbir mom an qudratin ci kàttanuk yalla kanat la nekke lolou lañ ci djublu wa qad yaqulu te dana wax leg leg al insanu nit ki fi du'a'ihi ci ñaanam allahumma yubur yalla mi ci turi rafet melay yekati ko yi ighfir lana jéggal ñu ilmaka sa xam-xam fi na ci ñun te wa innama li am ba mooy yuridu liñ nam mooy maaluma ka mooy la nga xam mooy li nga xamante ne maanaam sa xam-xam daf kaa waral ci ñun allazi bi nga xam te ne alimtuhu xam nga ko kon fa sammu ñu tuddee al maaluma la ñu xam bismil ilmi ñu tuddee ko xam-xam naka noonu nag sammu noonu dong la ñuy tuddee al li nga xamante ne moom la ñu gërëm ah bismil rida ci turu ngërëm wa sammu ñu tuddee al maxduba la ñu mere bismil ghadab ñu tuddee ko mer Euh, masalan buñ ne e lii de meruk yàlla la lii ngërëmal yàlla la maanaam mooy ne yàlla li mu feeñal ci moom ngërëmam ak meram loolu lañ loolu lañ tuddee maanaam loolu nag day tontu li nga xamante ne te dinañ ko gis incha allah li ibnu abul aziz al xanafi di wax maanaam te loolu waxu ibnu taymiya la ak mboolem salafi yi dañ koy wax ne masalan borom bi subhaanahu wa taala bi mu waxee ne yawma alqiyamati inna allaha ghadiba al yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wala yaxdab ba'dahu mislahu mooy bu ñu demee ci mooy ci xadisu shafaa xadis bi ramm bi ku nekk dem maanaam bu njëkkee dem ci yeneen yi alayhi salaam di wër pour ñoom ñu ramm dañ naan ah tey de naka buur yàlla dafa mer mer boo xam ne mësta mer lu ko jiitu te dootul merati mer bu mel nii ci ginnaaw bi maanaam ñoom dañ naan loolu day wane ne mer bi dafay sosu parce que comme mësul woon mer tey maanaam mer avant. mer bu mel nii te dootul merati mer bu mel noonu ñoom ñu nekkoon kon loolu li muy tekki maanaam xadis boobu li muy tekki mooy nekkoon yàlla ak meram dafay sosu dégg wax bi maanaam ñoom foofu la ñu naan foofu la ñu déggee waaye wax jii daf leen di tontu maanaam mooy lan mooy ne mer googu yàlla mer tey maanaam loolu li muy tekki mooy yàlla dafa feeñal meram tey te feeñu waayu mer boobu tajal lii boobu maanaam ni mu ko feeñalee noonu feeñal googu nonou mu ko feeñal ci bis bi ni muy yowmal xiyaamati mësutoon a am avant té dootul amati après manam lolou lay tekki waaye tegtalewul ne manam que ni bis booba parce que justement manam bis bobu kenn dafa deful dara lutax yalla lay mer manam ñom ci seen mesab sax affaire bi du jub parce que bis bobu amul kenn ku muy nekk yowmal xiyaamati koo xamante dafa def lo xamante warna war naa a tax yalla lay mer. parce que ñoom dañoo jàpp ne mer moomu sababa koy waral maanaam dafa am lu tax mais amul benn benn fee bu tax tey yàlla ne eh tey dinaa funki dinaa mer comme ñoom ni nga xam ne ñoom noonu lañ koy gis dégg te loolu beneen mbir la boo xam ne day dëgëral li nga xamante ne moom mooy maanaam mooy mooy day tontu loolu nga xamante ne moom la ñoom ñoom ñii di wax maanaam loolu moo lay war ne ñoom seen dégg-dégg maanaam ñoom problème mu xel lañ am en fait problème mu xel lañ am maanaam. Euh, Euh, manam taxi yi dinañ ko jël mais dañuy japp ne taxi yi ñoom maanaam duñ jël globalité taxi yépp dañuy jël benn rek japp ne jeexna wax ñi ni point final ba paré bayyi fi mbolam yenen taxi yi nga xamantene ñom leer nañ ci leneen té loolu moom mooy jëmmi bida manam nitu bidaa yi dafa bok ci liñu ñu moy duñu dajalé mukk taxi yépp té benn mbir bu mëna doon té loolu du ci ah, ci mbolam mbir yi la aju fiqh ak leneen ak leneen masala bu gën ndaw ci masala yi te benn masala ndawul mais dañ koy waxee noonu masala yi bu gën a ndaw ci masala yi boo ci bëggee xam lan mooy àttee yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi ci masala boobu faaw nga dajale mbooleem texte yi nga xamante ne ñooy wax ci masala boobu dajale leen ba pare war leen a dëppale maanaam war leen a dëppale loola tax ilmul usul am solo parce que ilmul usul moom mooy tax usul fiqh moom mooy tax ak ak xawaayit yeeg yooyu al ashbah wan nazair ak xam-xam yi war wërloo ci yooyu mooy tax nga mën a jël benn xadis wala benn aaya alquran nga xool masala bi mu junj ci mbir mi nga ni damay jëli ji yeneen masala yi ci des yëpp ma dajale leen ba mais ilmul usul xam-xam bi muy uti yi tax nga mën a xam nan ngay dëppale texte bi ak texte bi bu fekkente ne dañoo nuroone ne ñoom ñaar dañoo wuute maanaam nan nga leen di compa nan nga leen di Eh, tege ba nga xamante ne wuute dootul amati maanaam mbir mi day daal leer loolu yëpp ay outils yoo xamante ne eh, maanaam loolu il faut mu am mooy analyse boobu noonu te ñoom eh, maanaam rek teg ñu ne la ah yaa ngi dugal xel te ñun xel nangam ñun teg si la ñuy jëfandikoo noonu alors que ñoom ci seen bopp la rek dañ naan la lii dalil lu aqla wala aqla la. maanaam lii xel xel teg teg tegtalu xel la ak lu ñu toxal mais boo xoolee seen biir ñoom dëgg-dëgg problème xel la ñu am moo tax lii euh, kenn ci sëriñ si waxoon euh, euh, su ma juumul az-Zahabi la bam ne Ibnu Taymiya moom dëgg-dëgg problème am lenn la mooy ne xam-xamam moo gën a rëy xelam maanaam xam-xamam dafa gën a rëy xel mi Euh, voilà te maam li voilà loolu loolu loolu euh, point la boo xamante ne bu bu bu bu mat a bàyyi xel la maam li li tax ñu wax yi mooy ne ñoom seen mazhab maam seen gis-gis dafa dëppoo ak maanaam ñoom dañuy voilà dañuy wax ne wala maam dañuy dañuy dañuy wax dara fekk li nu wax dëgg-dëgg dafa wuute ak li nga xamante ne moom mooy Euh, moom mooy mbir mi ni mu demee ci dëgg-dëgg euh, ak it di di sosalaate voilà te maanaam euh, ne borom bi subhaanahu wa ay xew-xew day xew ci jëmmam moom yàlla maanaam ci moom loolu moom moom moom daf ko wax ci ay ci téere yu bari tamit maanaam dañuy jël rek yenn ci ci ci ci ci ci ci ci waxam maam ci al kitaabul muwaafaqa nee na dafa ni fa min ayna fi l qur'ani maa yadullu dilalatan zahira ala anna kulla mutaharrikin muhdath aw mumkin wa anna al xarakata laa taqumu illa bi xaadisin aw mumkin wa anna maa qaamat bihi al xawaadisu lam yaxlu minha wa anna maa laa yaxlu min al xawaadisi fa huwa xaadis maanaam wax ji sax leeral leeraloon nañ ko dëgg-dëgg biñ ci bi mais eh, eh, dani ana fan la nekkee ci alquran luy tegtaleen tegtal gu feeñ ci ne lépp luy yëngatu dafa sosu wala boog ne lépp luy yëngatu mumkin mën naa ne maanaam moom li la bëgg a wax fii mooy maanaam moom moom bi muy wax li li li muy xalaat mooy ne day bañ nga jàpp ne yàlla du yëngatu comme ñoom ni ñu jàppee yàlla dafa euh, nekk ci kaw aras toog mais que euh, asamaan ju guddi gu jot ah day wàcc ci asamaan si maanaam yëngatu googu moom lay bañ nga dàq ko yow mu ne euh, moo tax mu lay wax lii et que maanaam day bañ nga jàpp ne loolu dafa possible te lépp possible maanaam du du mën a sax ci yàlla mom nak day bañ ni lol day bañ nga japp ko e que day japp ne déedéet loolu dafa war sax ci yalla mune ne ak it lan mooy ne lu yeungatu rek du meuna sax manam, euh munul nek ludul ci lo xamne lu sosu la wala lu jappande la wala lu meuna nek la ana lan tamit ne lepp lo xamantene ne ay mbir yu sosu manam. dañoo a nekk ci moom rek mais maanaam moom loolo mënutoona euh, maanaam euh, que ni euh, mësutoona bañ a nekk ci moom et que lépp loo xamante ne lu dul sosu ni mënta nekk ci moom maanaam maanaam mooy ne lu dul lépp loo xamante ne ay mbir yu sosu dañoo am ci moom rek c'est parce que dafa sosu maanaam lépp loo xam ne ay mbir yu sosu dañuy mën a xew ci biiram c'est parce que lolu dafa soso manam lan moy wane ne lu lu lu soso manam quelque chose de de de de de contingent wala bok lo xam hadith moy xaadis mooy lu loo xam amul won mu jékki-jékki am lepp lo xam amul won mu jékki-jékki am bu fekkente ne loolu dafa mën xew ci sama jëm man lolu day tektale ne man dama soso manam mu ne loolu ana lu koy tektale manam fi li la bëgg wax te dinañ ci ñëw tamit. ci wax jo xamantene mom moko wax de euh mune ci ci alminhaj ci alminhaj mu ne fa in qultum lana faqad qultum bi qiyaami alxawaadisi bi rabb qulna lakum naam wa hadha qawluna alladhi dalla alayhi ash-shar' wal aql mune so len ñu waxé ne euh yàlla mom manam bo len ne yow li nga bëgg wax yëpp soko waxé ba pare limi muy tegtale mooy ne ay mbir mën na créer wu ci bir yàlla mën na sosu ci bir yàlla mi nga xamné moy borom bi mu ne bu boba qulna lakum dañ lay wax ne la na am wa waaw ba pare daal ne wa hadha te li ni nga wax ni ne yàlla ay mbir day créer wu ci mom qawluna moy suñu wax bi nga xamné alladhi dalla alayhi shar'u wal wal aql ne lii moom mooy li nga xamante ne charia da koo dëgëral xel dëgëral ko est-ce que charia da koo dëgëral déedéet abadan xel daf koo dëgëral déedéet maanaam loolu leeraloon nañ ne loolu mënul nekk ci yàlla lu tax parce que loolu su mënoon nekk ci yàlla parce que al ghinal du mën a ne ci moom le fait que yàlla maanaam nekk koo xam ne woomal la maam dafa woomal wëllif lépp koo xamante ne soxlawul leneen ci moom amul dara lu mu aajowoo te bu boobaa lii lii li beneen mbir bi am moom mooy ne day tegtale na maanaam lii cim xel la rek maanaam kon bu doon ne loolu mën na nekk ci yàlla mooy ne avant loolu di sosu ci moom kon yàlla parfait wul woon maanaam mooy perfection wu yàlla pour mu mën a mat dëgg-dëgg il faut que leneen xew ci moom pour mu mën a mat wala loolu xew ci moom nekk lu wàññi lu ko wàññi maanaam ñaari possibilités yi moo am maanaam amul bu leen ñetteel mooy soit ne loolu di xew ci yàlla bi mu xewee ci yàlla yàlla dafa gën a mat wala bi mu xewee ci yàlla yàlla daa wàññeeku maanaam dafa gën a imper dafa gën a imparfait maanaam wala boog dafa nekkoon ku parfait mais loolu doolee ci moom moo ko yokk imperfection maanaam ñetteelu possibilité mënta nekk ñetteelu possibilité mënta nekk te loolu noonu maanaam loolu mooy cim xel te kon kon bu boobaa li muy tekk mooy yàlla day soxla di soppeeku pour di mën di jou di mën di euh, jauger wu maanaam di mën di euh, changer maanaam bu ko defee su soppeekoo muy mën di adapté wu ak ni àdduna bi mel maanaam ni mbindeef yi mel su ko defee muy matam di bañ a wàññeeku wala bokk euh, pour mu gën a mat et kon ndekete yàlla na mate woon dafay soxla leneen di xew ci moom ngir matam googu gën a yokku te kon bu boobaa li muy tekki moom mooy yàlla ak matam mësta nekk maanaam kon ndekete day gën di soxla di gën di mat te loolu noonu moom la boroom xel yépp mën a dàq comme niñ ko gisee woon loolu leeraloon nañ ko ne yàlla soxlawul lan maanaam moom dafa mat ci ci cosaan naka jekk noonu la mate te na mu mate ci naka jekk mu mës a nekk ak nekkam amul fu mu tàmbalee noonu la mate naka jekk ba abadan loolu déjà ben problème la ci mom ni mu xalaté mais ñaareelu mbir mi lim ne sharia dàq ko mais xana du mam ibrahim alayhi salatu wassalam salaam loolu gisoon nañ ko bi muy wax ñi nga xamantene ñom lay ja maanaam ñoom ñooy euh, weer weeg jant bi ak biddiw yi nga xamantene mom la ñim doon nekkal doon jaamu bëm leen dé démontrer ne leen ñom duñu yalla lan la leen démontrer loolu moy le fait que ñuy mënd di yëngatu. ak mbir yi di sosu maanaam lu sosu di mën a xew ci ñoom le fait que ñuy mën di feeñ ak di nëbbatu maanaam jëmmi mbir moomu ci la ci lañu ci la leen tegtalee ne le kon lii mënta nekk yàlla parce que yàlla day nekk koo xamante ne maanaam moom mbir yi du ñu am effet ci moom tey naka noonu du nekk koo xamante ne maanaam day day day yëngatu maanaam day day day dem ak a dikk day feeñ a nëbbatu maanaam du du du mel noonu loolu loolu loolu loolu mënta nekk ci yàlla mais lii yëpp maanaam dafa nekk loo xamante ne ah, ak ak muy toxu di soppeeku di jugee ci benn xaal dem ci beneen xaal maanaam le fait jant bi ak weer wi ak euh, biddiw yi di mën di toxoo nekk ci benn xaal tey léegi ni ci kanam tuuti mu nekk ci beneen xaal loolu mooy jëmm li wane ne ñooñu mënuñoo nekk yàlla ilah moo tax imam at-Tahawi rahimahullah ci njàlbéen gi mu jëkkee ñaari maanaam maanaam maanaam maanaam maanaam baat yi mooy bi mu naan inna allaha wahidun la sharika lah nga ko buur yàlla kenn la amul ko bokkaaleel te wala shay amis la amul kenn koo xamante ne Euh, mooy ku yemmoo ak moom maanaam ku ku kemmoo ak moom wala shay'a yu'jizuhu amul dara lu ko lottuloo wala ilaha ghayru amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ko dul moom maanaam loolu moom moo tax parce que lu tax parce que ngir nit maanaam maanaam ngir nga mën a nekk yàlla faw nga nekk koo xamante ne say xaal du soppeeku et que da ngay nekk koo xam ne da ngay melowoo ak mat koo xamante ne da ngay nekk koo xamante ne da ngay am alxinal mutlaq alqiyaamu bi nafsi maanaam nga taxawee sa bopp moom yàlla mooy alqayyum mooy ci taxawu boppam carrément ba pare taxaw mboole mbindeef yi mais su fekkente ne ay mbir day mën a xew ci moom et que mbindeef dañuy am ay effet ci moom wala boog day am luy xew ci moom mu jékki-jékki di soppeeku xaal maanaam kon moom Ibrahima alayhi salaam nan la mën a tegtaloowee ci loola ngir wane ne jant bi ak weer wi ak biddiw bi duñ duñ ay yàlla kon loolu shariat indi na ko. sharia indina ko te li ni ma li ni ijma la ijma la ijma umma bi la euh legi ñu indi wax jo xamantene bon nu ron ak wax ibnu usaymin manam di dañuy beuri wax ki ku ko defé ñu gis ne deug deug du luñu len sosal manam ñom ñoko wax manam et nii la parce que ñu bëree bëri dañuy dañ affaire bi daf di inquiéter surtout ñi nga xam ne dañuy gëstu maanaam ñoom affaire da leen di jaaxal maanaam naka la non non c'est pas possible que ay Albani Ibn Usaymin Ibn Baz Al Fawzan ak ak ñeneen euh, non quand même wala Ibn Taymiya Ibn Qayyim ñooñu xalaatee loolu mën na ne maanaam ñoom munuñu comme munuñu imaginer ni ndekete ñoom. nii lañ jàppee yàlla maanaam yàlla bi ñu jàpp maanaam mooy du bokkut ak yàlla ñun bi ñuy jàmm en fait ñoom yàlla bi ñuy jàpp mooy benn ponkal bu nekk ci kaw toog de temps en temps muy wàcc parce que guddi gu jot dinay di wàcc de temps en temps xool si asamaan bu njëkk bi delluwaat fa mu ne woon et que euh, euh, maanaam mooy ab xërëm daal benn benn xërëm boo xamante ne ñoom mais sauf que bii xërëm du bu ñu tabax teg ko fi mais bu nekk ci kaw la

ku mën a jàpp ne ñooñu ndax ay nitu bidaa lañ wala waa ahlu sunna lañ maanaam nan nan nan nan nga mën a toogee di différencier yooyu naan way pourtant ñooñu ahlu sunna lañ nangam nangam maanaam nan nga mën a taxawee rek di xalaat ndax ahlu sunna lañ au moment où borom xam-xam yi dañuy wuute ndax dañuy leen di jàppe ay yéeféer waa wala déet am na ñoo xam te dañoo dem ba jàpp ne képp ku leen jàppee ay kilifa ci diine yow ci sa bopp yéeféer nga comme al euh al hafiz abdullah ibn muhammad ibn siddiq al xumaari rahimahullah nga xamne mom def ci bind sax téere ni kep kuy wax ibn taymiyyah diko tuddé tuddee cheikhul islam yow waxuma mom de yow yéeféer nga wax joju ñun d'accordu ci ànduñ ci mais day wane quand même à quel point la mbir mi yegg maanaam fan la mbir mi yegg parce que euh, ba ci Ibnu Taymiya dàqul ci ne yàlla jëmm la de dafa ni yàlla te loolu dinañ ci ñëw incha allahu taala bu ñu yegsee ci euh, bu ñu yegsee foofu incha allah dinañ ñëw ci gën ko leeral ne Ibnu Taymiya moom ci boppam dàqul ne yàlla jëmm la mais dafa ni. dàqu ma ne jëmm la mais dàqu ma ne du jëmm parce que nee na loolu amul lu koy tegtale te loolu mooy liñ doon wax ne Muhammad ibn Abdul Wahhab te loolu mi wax na ko ci xadisu nuzul sharx bi mi sharx xadisu nuzul xadis bi naan yàlla day wàcc ci asamaan bu njëkk bi euh, ci guddi gu jot euh, ceeru guddi gi bu weesoo bo après riwaayaat yi dañoo wuute ñi ne maanaam parce que am na tamit un sixième goudi gi ainsi de suite mais hadith boobu bi koy sara loolu bokk na ci li wax te loolu dafa duppo ak justement li ñu ne Ibn Usaymin mom ci bopam wax na ne Muhammad Ibn Abdul Wahhab moy sen serigne bi gëna a mag nga xam mom lañuy mom moy sen vrai vrai vrai serigne en fait Ibn Taymiyya sax sen référence la mais Muhammad Ibn Abdul Wahhab moy sen vrai serigne motax ñu lan len al-Wahhabiyya manam ñi référé wo ci Muhammad Ibn Abdul Wahhab moom dane yàlla munuñu wax ne jëmm la munuñu wax ne du jëmm te lu dul benn du ñaar ci téere yi ibnu taymiya yi ibnu taymiya day wax ne euh, amul luy wane ne kuy yëngatu maanaam yàlla mënta du yëngatu amul luy wane ne yàlla dafa dal amul luy wane ne euh, euh, kuy yëngatu mënta nekk yàlla te lool nii nii nii nii seen seen seen seen vision la maanaam du loo xamante ne ñun maanaam ñoo ko sos wala yooyu déedéet <laughs> du loo xamante ne gars yi dañoo bëgg dañ leen a ameel bëñ rek mere leen rek moo tax ñu ñuy bëgg di wax déedéet du du du mere suñu sañoon ñoom duñu wax mukk wax yu mel nii suñu sañoon ñoom duñu mel parce que xam nañu ne ñoom am nañ yéene bu rafet ci eh, diini l'islam am na njéene bu rafet ci yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam am na njéene bu rafet ci topp alquran ak sunna loolu moom munuñu leen ko bañal xam nañ ni am nañ yéene bu rafet boobu am nañ yéene dëppook alquran ak sunna waaye terewul nag bu ñu juumee faw ñu taxaw nag ne ah ay la yéwén mbir mii dafa garaaw gis-gis bii dafa dangereux dëppoowul ak alquran ak sunna dëppoowul ak waxu salafu saalexe au moment où ñoom dañuy mës di réclamer wu ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo topp yoonu salafu saaleh et que ñoom alquran ak sunna rek la ñuy topp mais ci ni ko mag ñu baax ñu déggee te mooy yenent yi alayhi salaam ak sahaaba yi radiyallahu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy génération yu njëkk yi ñooñu liñ déggee alquran ak sunna ñoom ci gis-gis boobu la ñuy topp loolu nag xëy maanaam man man weddiwu ma ne ñoom bëgg nañ ko te suñu sañoon noonu la ñuy mel waaye nag toppuñu ko loolu nag la ñuy wax maanaam foofu mooy suñu point de divergence ak ñoom ñoom toppuñu ko parce que ñun dalil yi ñu am yépp day wane ne ñoom toppuñu ko et ñun ñoo topp loolu mais ñoom dañuy bañ loolu foofu la ñu wutee ak ñoom foofu rek mooy point bi ñu wutee ñoom léegi ñu déglu Cheikh euh, Abdul Aziz Ibn Baz nee na euh, euh, maanaam moo nekkoon mufti bu mag bu Arabie Saoudite yépp moom mooy mufti bu mag ba moom mooy seen mooy seen kilifa bu mag rahimahullah voilà euh, ci biir année bon fait année année quatre-vingt-dix yi su ma juumul wala début année deux mille yi ci la génn àdduna moom ak al albani yëpp ak Ibn Usaymin ñoom ñëpp période boobu lañ génn àdduna maanaam yàggul dara jàppatuma exactement même date mais maa ngi fàttaliku ñoom ñii ñëpp kenn ku ci nekk ci ñoom sa génn àdduna loolu yàggul. voilà d'ailleurs benn base bi moom la Ibrahima Diagne euh, rahimahullah bi nga xam ne moom moom Excaf Télécom moom la tuddee woon boppam benn base maanaam mooy ki moom ñoom rajo doon yaa ñoom kii yàlla na ko yàlla yërëm moom moom benn base bii la tuddee boppam waaw xëy na dakaa fan woon wala yu noonu parce que voilà maanaam euh, ndax Cheikh Abdou Aziz bi maanaam dafa nekk quand ku ku siiwoon la ci ñoom. moom laa doon wax ne xaw nag par contre lan moom mooy ràñ maanaam moom la ràññee ko mais concrètement sincèrement ba tax ñu war ko mën a teg maanaam def ko héros bu toll noonu maanaam ci xam-xam maanaam man gisuma ko euh, essayé naa liir ay téereem essayé naa déglu ay darsam mais gisaguma ba tey lan moo war a tax ñu teg ko maanaam fi ko teg maanaam boo ko comparé ak ñeneen ñoo xamante ne mais vraiment ñoo ko ëpp xam-xam mais ñoo gën a leer xam-xam gën koo mën a toj fuuf ci seen biir ñoom seen biir dañ bëri nay kàngam yoo xam ne ñoo ko mais maanaam mënuñu leen sax comparé léegi moom lan moo tax particulièrement moom ñu yëkkati ko loolu mooy li ma gisul man dégg nga euh, moom dañ kaa laaj euh, ci. Madame, moy ci fatawa durusi manam fatawa yu mi def ci ci ci euh, ci sitam manam euh, fatawa manam parti bobu fatwa dina am voix mi ngi ci ah, une minute 18 huit la une minute dix secondes la. ñom ñoko maam ñoko ci def daal maam mooy dañ ko laaj ne ko maa aqsaamu sifaatullahi taala maam ñom non lañ tuddé parti bobu maanaam lan moy xaju melo yi yàlla yi aji kawe ji laaj bi mo nekkon li hal aqsaamu sifaatullahi subhanahu wa taala arbaa sifaatun lazima wa sifaatun tari'a wa sifaatun xabariyatun wa fi'liya wa hal kullu sifaatin lazima tasbutu bis sam'i wal aql وهل كل الصفات الخبرية صفات لازمة واخ جي نك موي دغ رك مانام ميم بو خامل لي مي واخ ديغا دغ واخ ييغا خامتاني موم لا ابن عثيمين دان واخ موي دنج نكو نдах مانام هل اقسام صفات الله هل اقسام صفات الله سبحانه وتعالى اربعه نдах خاجله غيني خاجله ملو يالله سبحانه وتعالى نдах نينت لا sifaatun lazima moy sifa melo yo xam dañu takku ci yàlla wo sifaatun taari ah ak melo yo xam dañuy bet yàlla dañuy yegg ci kaw yàlla manam day xew parce que euh manam yàlla daf ko subir euh motax ma ñom solo ni ñi waxe le le ki dana sifaatun taari ah maanaam dañ ko tuddee ne wala ci ñu comme par exemple Ibn Ibn Taymiyya lu ci ëpp mom sifaatun hadith la yo ay melo yu soso wane wa sifatu khabariya ak sifa melo yo xamantene khabariya lañ manam ay information la ak wa sifatu fi'liya ak melo yo xamne ne mel fi'liya ak melo yo xamne melo yu jëf la mu wa hal kullu sifatu lazima ndax melo yi nga xamne moy yi takko ak yàlla yep tasbutu dafa saxé bi samé ci dig wala aqli ak xel wa hal kullu sifatu khabariya ndax melo yi khabar yi même même information yi ñoo indi yep ndax sifatu lazima ay melo yu tax sax lañ ci yàlla manam li moom mo nekkon laaj bi léegi moom mu tontu mu ne al maaruufu annaha samayiyatun mutalaqaatu min al kitaab bi wa sunna mu ne al maaruuf li ñu xam annaha samayiya ne lépp dañ koo dégg maanaam mooy lan mooy mutalaqaatun lu ñu lu ñu lu ñu taawoo la lu ñu jële la min al kitaab bi ci téere bi muy alquran wa sunna ak sunna te mooy xadis yi mu ne kullu sifaatillahi samayiya mboolem melo yàlla yëpp dañ koo dégg maanaam kon ñoom léegi lan mooy différence bi ñu wax euh, sifaatu samiya sifaatu euh, euh, xabariya sifaatu lazima mu ne wa hunaaka mu ne ndax am na fii tamit fitriyatun aqliya loo xamante ne fitriya la maanaam mooy nit ki ci cosaan rek da koy xam aqliya am xelam da koy nangu fatarallahu yàlla dafa sosee dafa alayha ci xam-xam yooyu ci ci ci ci melo yooyu al ibaad jaam yi maanaam ne lim ci namm nag moy manam le fait que melo jaam yi diko ko xam quoi diko ko gëm parce que ñun lepp lo xamne dañ koy wax ci seen mbir tamit non seulement dañ koy waxé ñom niñ ko waxé mais aussi boudé dañu obligé ñun ñu interpréter ko dañ koy interpréter ci ni mu gën rafet pour bañ manam ngir ne yéene gi ñu leen yéene vraiment ñu bokkon ci ñi nga xamne dañuy nekk ci ci lu baax li te it ñoom loolu lañ yéene seen bopp maanaam dune dañoo bon na dune ne dañoo tëb tëb rek bañ dëgg wala yooyu déedéet dañoo bëgg a topp alxuraan ak sunna ñoom dëgg dëgg loolu ñuy wax man gëm naa ne dafa dëggu ci ñoom ne dañ kaa bëgg man moom gëm naa ne dañ koo bëgg te boo leen gisee seen xaal sax nga xam ne ñii bëgg nañoo topp alxuraan ak sunna bëgg nañoo topp lu baax bëgg nañoo topp dëgg dëgg yoon wu baax yi sauf que dañoo sax dañoo réer maanaam dañoo sànku te ci point yu essentiel lañ sanko te moy li nga xamni mo moo aju ci yalla ak li aju ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que niñ jappé yenenbi sallalahu alayhi wasallam gënte rëy gënte sori que ni man ak mom ak yow ak keneen ak keneen ñun ñoo yem sauf que suñu différence fenn rek la nekkee moy dañ ko wax yu manam mom daf ñoo gën parce que wax yu nañ ko mais wourul sax ne mo gën ci minde fi ne yenente bi sallallahu alayhi moo gën ci lépp lu yàlla bind loolu sax wóoruñu Ibn Usaymin bi ñu ko laajee li yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax moo gën ci mbindeef al Albani tamit même chose daf ni dañ ni ñoom wóorul ne yenente bi moo gën ci ni mbindeef yi sallallahu alayhi xam nga lan mooy seen tak dalil ndax yàlla nee na wa yaxluqu ma laa ya'lamun yàlla nee na te bind na luñ xamul comme que yàlla bind na luñ xamul en tout cas ñun li ñu xam yenente bi moo ci gën saa salaam mais comme yàlla possible na moom moom bind na luñ luñ xamul kon xamuñu wóoruñu maanaam ñoom niñ jàppee yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy dañ koo jàppee comme man ak yow différence bi rek mooy lu ko yàlla wàccee ci alquran wala mu xamal ko ko nekko lii mooy àttee nangam mu xam ko jeex na loolu la ñu ëppale ëppale wuñu leneen yàlla nañu yàlla sàmm ànd ak loolu yëpp nag bëgg nañ ko maanaam ñun munuñu ñun waxu waxuñu ne ñoom bëgguñu yent bi de sallallahu alayhi ñoom bëgg ak ñu ko bëgg d'ailleurs bëgg giñ ko bëgg euh, moo tax ñuy doxale ni ñuy doxale moo tax ñuy xalaate ni ñuy xalaate mais ànd ak loolu yëpp nag dañoo juum maanaam yéene gu rafet taxut a taxu terewut a juum maanaam nit mën na am yéene bu rafet ci dara ba pare juum maanaam xa bëgg bëgg lu baax sauf que nga juum loolu moo leen dal dégg nga mu ne kon borom subhaanahu wa maanaam dafa am melo yoo xam ne dafa dafa sosee nit ñi ci loola maanaam mooy ci ñu gëm ko mooy comme fatarahum alal iman comme ni mu leen sosee ci ngëm maanaam moom moom dafa jàpp ne yàlla nit day judd rek gëm naturellement day gëm loolu nag point la boo xamante ne gisoon nañ ko ne euh, am na ñu mel noonu ñoo xam ne yàlla noonu la leen bindee mais am na ñoo xamante ne il faut que ñu yeewu xool xalaat doga a gëm voilà manam foog ñu am ay preuve yu leen gëmloo il faut que ñu am ay mbir yu leen yu yu sen sen sen seen xel ñu settantal analyser gis ne amul dara lu jub lu dul gëm yàlla mais am na ñoo xam ne effectivement yalla non la leen dundee dañuy yew rek gëm ñi juddoo nak ci réew yi diiné yi ñaare ñom gëm day naturel ci ñom manam pas parce que dafa nek lu naturel mais parce que depuis ñu judd dañ leen di wax wax yalla donc ñom amuñu temps wu sax nek di réfléchir ndax deug la wala du deug plus ñuy dem plus mu am lu leen di conforter xeyna mom lool ñom lool mom motax ñu japp ne dafa naturel même bir mi sore na nek lu naturel comme ñi nga xamni yi fi non lañu juddo ñu leen di jangal kéefër ñu màgg nekk yéefér c'est pareil dégg nga mu ne comme ni nga xam ne borom bi subhaanahu noonu lay sosee nit ñi mais nag ñoom <laughs> moom déglu li wax mu ne alal imaani bi uluwillahi subhaana ci ne nit ki day yeewu rek gëm ne yàlla dafa kawe mais ñoom bu ñuy wax kaweeg yàlla jubluwuñ ci ñun li ñuy wax mais yàlla dafa kawe moo féete kaw ñëpp moom moo noot ñëpp mu ak yu mel noonu déedéet ñoom liñ ciy jublu mooy ne yàlla moom dafa nekk ci kaw maanaam ci kaw la nekk ci position maanaam mooy boo doon géolocaliser yàlla ci kaw nga koy fekk maanaam direction ci kaw lay ne ñoom maanaam boobu lañ ciy jublu daa iman te ñun ñëpp d'accord nañ ci ne mais xoolal imam at-Tabari imam at-Tabari rahimahullahu taala moom ci ci tafsiram bi dafa ni lu ñu tuddee al jiha loolu amul ci yàlla maanaam mooy direction ànd ak loolu yëpp daf naan ala wartafa yàlla yëkkatiku na maanaam kawe na te yëkkatiku na parce que loolu dafa nekk lu rot ci alquran ñoom léeg-léeg dañuy tegtaloo ci borom subhanahu wa ta'ala bu ne wa huwa alqaahiru fawqa moom yàlla moom mooy ci noot te kaw jaamam yi moo leen noot ñoom ñun ahlu sunna dañuy jàpp ne loolu li muy tekki mooy moo leen noot maanaam moo leen féete kaw c'est-à-dire moo leen noot dominer leen mais ñoom dañ naan déedéet moom moo leen noot li muy tekki fawqa ibaad yi moom mooy moom ci boppam maanaam jaam yi dañuy ne ci suuf moom position mooy ci kaw loolu nag mooy li ñu wuutee maanaam ñun d'accord nañ ci ne moom ñoo leen noot maanaam moom yàlla moo noot jaam yi mais nañ yem ci loolu ñoom bu ñuy ñoom buñ mais ñoom dañ naan déedéet yéen da ngeen a bañ ne yàlla moom moo féete kaw jaam yi ñun déedéet ñun d'accord nañ ci ne yàlla moo féete kaw jaam yi mii moo féete kaw jaam yi ñun loolu d'accord nañ ko mais ñoom dañ naan déedéet yéen da ngeen a bañ loolu alors que déedéet ñun d'accord nañ ko fan la ñu wuutee ñoom jàpp gi jàpp ne féete kaw googu ci position la maanaam position géographique la alors que ñun dañoo jàpp ne déedéet féete kaw googu nooteel la maanaa la. maanaa la comme li imam al ashari wax radiyallahu anhu comme ni al imam ibn Fawrak ni mu ko solowee ci moom dégg nga mu ne yàlla kon maanaam moom daa jàpp ne le fait nit ñi jàpp ne yàlla ci kaw la nekk te moom mooy nat maanaam mooy de position am ci kaw loolu daa naturel mais lan moo tax waxul ne yàlla ñun jàpp gi ñu jàpp ne ci kaaba gi la ne parce que moom la ñuy ziyaare ji bu ñuy dem aji ji ci néegu yàlla ba lañ jëm lu tax jàppul ne yàlla fofu la ne lu tax jàppul ne ñun le fait que ñuy julli di jakarlo fofu ke dañu jàpp ne fofu la yàlla ne deng euh mune wa annahu rabbuhum manam manam wa qudratihi wa qudratihi al azima mooy ni ñu nit mu d'accord ci ne yàlla dafa am kàttan goo xam ne nag sañ-sañ gu mag loolu mu ne fitra la wa annahu rabbuhum nekk moom yàlla mooy ki leen moom mooy leen di toppatoo wa xaaliquhum te moom mooy wa xaaliquhum moom mooy ki leen bind mu ne loolu mu ne haadihi fitratu lii yëpp fitra la maanaam naturellement ci originalité wu nit ñi ak seen primordialité dañuy daal di mel nii fatarallahu alayha al ibad ne yàlla def ci sosee jaam yi mu ne loolu moom daa jàpp ne yàlla noon maam noonu la noonu la noonu la maam nit ñëpp nii lañ mel wajaa biha sam'u te alqu maanaam eh, déggéen wajaa te déggéen dikkee na biha ci moom as-sam'u dégg-dégg gi maanaam mooy minal kitaab bi wa sunna mooy ci alquran ak sunna dañ ko ci dégg wa hiya qismaanun mu ne nag melo yàlla yi ñaari xaaj la zaatiyatun loo xam ne ko nekk-nekk la wa fi'liyatun ak ko jug jëf maanaam gis teqale googu jege na ak lii Ibn Usaymin waxoon mu ne euh, yoo xam ne maanaam ji ko jug jëf gi nag tata'allaqu day aju bi mashi'ati yi ci coobare moom subhaanahu wa ta'ala mu ne fas zaatiya mu ne meloog yàlla bi nga xam ne meloog nekk-nekkam la moom la ñu moom gisoon nañ ni Ibn Usaymin li mu waxoon mooy def ni moom ñoom moom la ñu tuddee lazima nee na kas sama mooy comme dégg-dégg wal basara gis-gis wala ilma xam-xam wal qudrat ak sañ-sañ mu ne haadihi sifaatun zaatiyya lii ay melok nekk-nekk yàlla la laazimatun lahu yu taqoog moom yàlla subhaanahu wa taala min kamaalihi loolu ci matam lu amee jalla wa ala màgg na kawe na mu ne waaye nag wa hunaaka sifaatun ya fii nag waaye nag dafa am ay melo yoo xamante ne meloog jëf la tata'allaqu bi mashi'atihi boo xam ne day aju ci coobareem maanaam melu jëf la goo xam ne daa aju ci coobare yàlla ce qui veut dire ne yàlla saa yoo ko neexee la koy def saa yoo ko neexee du ko def karrida mu ne kum ngërëm wal xadab ak mer wal xalq ak bind wal risq ak wërsëgal wal tadbir ak di soppandiku wal kalaami ak kàddu maanaam yii yëpp kulluhu mu ne lii lépp bi mashiat yi ci coobaram la subhaanahu wa taala maanaam nga gis kon ñoom ni ñu déggee mbir mi mooy ne kon yàlla day def saa yu ko neexee mu wax su ko neexee mer su ko neexee kontaan su ko neexee bi mais maanaam ci lu tax parce que dafa am ay sabab yuy tax muy mel noonu comme niñ ko gisee maanaam moo lii moo lay wan ne ñoom wax ji du du du lu maanaam kon ay mbir yuy xew la mu mu ne ñooy la ñu tuddee sifatun fi'liya melooy jëf dégg nga mu ne foo huwa moom la moom day sopp day day wax iza sha'a su ko soobee su ko saa yu ko soobee mu wax lii ñun wute yuñ ceeg moom saa yu ko soobee mu wax mais wax jooju est ci boppam lay wax wala boog lu muy kàddu gu muy créer la loolu ñaar yooyu bokkuñu te ñoom bu fekkente ne d'accord nañ ci loolu wax jim doon maanaam ñoom euh, bu fekkente ne da ñoom bu bu dee bu dee ñoom dañ ne loolu sifatun zaatiyya la maanaam loolu léegi nañ ko laaj nañ leen laaj yàlla bi muy jox rendez-vous yent yàlla Musa alayhi salaam ci tuuru siina moo boobu yàlla dafa wàccoon ba foofu nekk nekk foofu wala mu ngi woon ci kaw aras loolu loolu lu mat a laaj la yàlla bi muy bi muy wax ak yent yàlla Musa alayhi salaam à travers kaddu gi ñoom dañ jàpp ne yàlla mi ngi ci kaw toog léegi euh, tàkk-tàkk bi doon ne bi yàlla ni ko man man la man an na ne ana allahu rabbul alamina man mii la man man yàlla maay borom mbindeef yi man maay wax ak yow maam tàkk-tàkk bii nekk ci wetu garab gi est-ce que loolu kaddu la gu xewee ci jëmmi yàlla bi nga xam ne moom ma nga ca arash ginnaaw juróom-ñaareel asamaan bi ci kaw juróom-ñaareel asamaan bi wala ki ko ki doon wax ak moom ci tàkk-tàkk bii la waxee moom sikk nekkul ci ne tàkk-tàkk bi ci la kàddu gi génnee maanaam mooy lan mooy mooy kàddu la goo xam ne yàlla daf kaa bind ci tàkk-tàkk bi loolu bokkul ak kàddu yàlla gi nga xamante ne mooy kàddu yàlla gi nga xamante ne azali abadi la maanaam moo tax waa ahlu sunna d'accord nañ ci ne yàlla dina bind kàddoom dina bind kàddu su ko neexee dina wax ak mbindeef mais loolu kàddu gu mu bind la goo xamante ne dafa am ay maanaa yoo xamante ne yooyu maanaa yooyu nag asali abadi lañ maanaa yooyu nga xam ne dañoo sax ci borom bi subhaanahu wa taala mësta den di nekk maanaa ci yàlla nekk melo ci yàlla mais que maanaa yooyu moom la borom bi subhaanahu wa euh, euh, maanaam moom la tegtale ci ay ci wax ci ci kàddu gi nga xamante ne moom la feeñal ci tàkk-tàkk bi ba yent yàlla Musa alayhi salaam dégg ko loolu lu mu bind la te saa yu ko neexee ci jaam yi mu wax ak jaam nekk maanaam mu wax ak yàlla yàlla wax ak moom ba pare mu nekk kàddu gu mu bind voilà comme ni nga xamante ne alquran bii ñu yor kayit yi ci ne sikk nekkul ci ne amul woon dafa jékki-jékki am mbind mi maanaam bind yiñ ci bind lettre dafa jékki-jékki am yooyu yëpp dafa am mais est-ce que lii moom mooy li yàlla wax alxuraan dañuy waxu yàlla la kàddu yàlla la mais loolu li muy tekki moom mooy lan mooy kàddu la gu yàlla feeñal ci kayit gii maanaam bii lii dafa sosu waaye maanaa bi nga xam ne moom lay tegtale te mu nekk ci yàlla loolu moo amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ñoom nag foofu la ñu wutee ñoom dañ ne yàlla wax na ko ba pare jeex na noppi na maanaam li mu wax ci alquran yëpp benn yoon la ko wax jeex na dootul waxati foofu nag la ñu wuuteeg moom ñoom mu ne wa yarda day sopp isa shaa saa yu ko soobee maanaam mooy kon maanaam muy mer maanaam muy kontaan ay événement la yuy xew ci moom wa yaxda bu day mer ma man man yashaaw maanaam wa yubxidu boog day bañ man ah, ah, ah, déedéet wa yaxdabu day mer iza su ko soobee wa yuhibbu day sopp man yasha ku ko soob wa yubghidu te day bañ man yasha ku ko soob loolu ànd nañ ci moom ne day mere ku ko soob day bëgg ku ko soob day bañ ku ko soob ainsi waaye loolu mer googu du loo xamante ne fi'liya la comme ñoom niñ ko waxee mooy jëf la joo xamante ne day am ni déedéet ay melo la yoo xamante ne zaatiya lañ comme niñ ko gisee hatta ba imam Ahmad na xamba leeral na wax na loolu comme niñ ko gisee woon maanaam euh, te loolu leeraloon nañ ko maanaam ne moom yàlla day feeñal meram ak mbég ak mbégtam ak bañam maanaam ci jaam yi mais loolu muy feeñal loolu noonu ji moom ci la ñuy xamee ne yàlla meloo woon ak mer voilà voilà dégg nga euh, mu ne lii yëpp. ala hasbi ci askanon tek ma la nga xamne dal la tek na alayhi ci mom kitabullah tir yalla bi wa sunnati rasuli alayhi salatu wassalam ak sunna yent bi alayhi wassalam manam euh wala <laughs> gis nga manam ñom luñu wax rek dañ nan e eh, alquran ak sunna tek na ko mais jeex na après ñu daal yam fofu ne ah, alquran ak sunna moko ko tegtale manam pour pour lo nit ñi daiman ñom iman ñi nga xamantene ci alquran ak sunna rek lañuy référé